bokkut ak daajum aras hmm? bokkut ak daajum nga daagum gëléem hmm? bokkut ak Sam Fall hmm? Sam Fall Karim Abdou Karim moo ko jëkk a daaj ci kanam sëñ Moussa Fall booba tànk bi day metti di naaj Sharaf Fall sëñ Moussa Fall ni ko deel wundiilu ndax tànk bi tànkam gi deñ moo tax ko Sam Fall soox Sidi Karim Diop. mooy wër mi mooy wër mi Diop. <laughs> ñu koy wër ñu koy wër. ñu koy wër bu toolee fa mu toolal Sëñ Moussa Fall taalal loxo yi. bu taxawee mu ne ko fii nga ko tàmbalee ba fi nga dellu siwaat ku ci bokk daj nañ si jëngu sawara. Mm-hmm. far nañ seen i bàkkaar. ba ku ko daaj ku la ca roy. Ah. fa mu tàmbalee bu fa bu yëg si waatee ñu daj bunti sawaraam di jëngi sawaraam jëg du jëgi salaat. mooy moo tax gars yi di soo di wër di bëngee ah, sama xel dem na kenn mun koo ñàkk waa gëm ñu leen ziar bu baax waa parcelle yooyu waaw <laughs> ndeysaan mhm. ëpp bëtin ci monde bi mm. te téere yu bari yooyu mu takk ba baat bi fees bu leen defe ne aaya alxuraan la mm. mhm. déedéet waaw lettre jërëjëfi sëñ Tuubaa jërëjëfi Cheikh Fall rek la daan takk tey te moo ëpp bëtin ci àddina tey mhm. jàmbar waaw moo waral bu Moussa ni mhm. ñëpp bu ñu ma geddal bañ a ñëw mu Fall ñëw mhm. man ub làmb ji bi mu wàccee liggéey ci suñ fal suñ fal damaa ban àddina jeew ma waaye kon mën ko pëkk pëkk mu jóg delluwaat saab liggéey waaye kon àddina damay jeew bàyyi mbay daw ni ko yàgg nañ laa jeew loo bañ la jeewee du fii tey mu mu ne mbay ndaw nel tekk ni mu mag du denc nen gone di sànni doj waaw Abdou Karim moo daan daaj Sam Fall di soox mo tax ku daj Sam Fall soox carrière mag ñee ko daan daaj jamono si lay Fall Ndar sëñ yor baxa yor ay bot ab kan kalaw di ferang lay ci dënd kimiñ tay ci kar jolli carrière bagge kàmb gi mab daanu ci seen kaw li mu sakk na ñeen fukki nit ñuy sëlli par benn suñ fal ni cee kaw rek faxa sunet bi ci rek cee kaw ñu di ko def di ko def ba am ku ci yendu ba tëkku seen gisuñu ko suñ fal ni ngoos leen des na de roogaa ngi wax ngoos leen waaw ñuy ngoos ndànk mm-hmm. ba peel bi dab góor gi bi peel bi dabee góor gi bu gisee peel bi takk kawar lañ mi ngi noonu ñu xoos ko ba dam ngaa mi mu ne bu leen ma gaañ daf leen ndànk ñu yëx yëxal ko buddi ko génn teg fi barab suñ fal ko daago daagul mu daagu ñu tudd ko Mikael Ndiaye Mikael Ndiaye Mikael Ndiaye Mikael Ndiaye est que carrière bu masaa ñàkk ndox ba kenn amul foor naana ji bu dee ma dikk bagaan dagitu bërigo yi laa la wax bërigo cent cent mille mille mille bi mm-hmm. lañ dagg ci digg bi moom lay gàdd bu génnee ci àll bi fu mu xamu fu mu koy jële waaye bu ñëw ñu seet ko mu jàpp muy palax bu yenn koo ñëpp naan. Mikaël ko Mikaël ñu ñu ne ko tuddal bàyyi sëñ Ibrahima la ne ko tuddal naa la Mikaël ay sa ngi may dégg. waaw Mikaël waaw. Mhm. Mikaël Ndiaye. ca carrière. waa ca carrière. Mhm. ba mu bàyyi Ibrahima Ndiaye Faris. Serif Asal ko tudde mhm. da ko fekk ci troisième étage muy muy raax. mooy Emel Ndiaye Faris. mun kaa faal bu ci nekkee yëguma ko mun ko bu ci néewut ma def ko ci sëñ bi la wax si mu daayiroo ci deuxième étage